mi nee na fa tabaarakallah. dégg nañu kàddu yi bu baax. suñ xalifa sëriñ bi neena dégg na kàddu yi bu baax a baax. teewlu nañ ko ak suñuy nopp. mu ne teewlu na ko ak ak suñu nopp. ak suñu xel ak suñuy xol. dégg nañ bu baax mu ne dégg nañ ko bu baax a baax. Eh, di sant di gërëm ci yitte jure ji ngeen def. mu ne di leen sant di leen gërëm ci yitte jure ji ngeen def. mu ne ci taxawaay bu rafet bi. mu ne mi ngi ci am mbégte bu baax. bu ci dolli ko yaakaar bu baax a baax di ci gën a am xel mu dal bu baax a baax eh, mu ne alhamdulilahi rabil alamina mu ne lépp loo xam ne daf koy wax ci biir saal mun na ko wax ci pénc mi mu ne kon nag dafa bëgg ag yéen foo xam ne mosu fa àgg ak kenn mu ne si seen diggante yéen ñaar mu ne seen ci digganteem ak réew mi eh, tolloo ci ñaar fukki at ak ñeent ak juróom. mu ne moom bi mu tolloo ci ñaar fukki at ak ñeent ak juróom. mu ne boobu la ko suñu borom xiir ci lu baax. mu ne la ko jiitu woon boobu. mu ne boobu jamono ji mi ngi toll ci bëgg sa réew. mu ne bëgg sa réew lañ daan wax. mu ne muy ndaw. mu ne bokk ci ñi bëgg ñi njëkk a bëgg réewam. mu ne dox ci ay jéego. ci gës kaw gëstu boobu mu doon gëstu. mu ne ci biir gëstu boobu mu doon gëstu. di gën a gëstu dëgg. mu ne di di gën a gëstu dëgg. di gën a gëstu lu baax. di a gëstu a gëstu suñu mu ne di gën a gëstu suñu borom. di gën a gëstu Sëriñ Tuubaa. di gën a gëstu diineem. tax mu jéggi foofu. mu ne loolu moo tax mu jéggi foofu. mu ne loolu moo ko njëkk a song. bëgg réew moo ko njëkk a song. mu ne yitte jooju. moo ko jëlee foofu. ba mel ni moom talatul dara. mu ne lépp lu dul digganteem ak Serigne Touba ak diggam a boromam mu ne loolu mooy li ko ëpp doole mu ne waaye mi ngi sant yàlla bu baax mu ne teew ko ànd ak sagoom mu ne teew koo xam warteefam mu ne kon la cay warteefam ci dunduk àdduna gi ak dunduk àllaaxira lu ci ne lépp lu mu ci mën dana ci def kéemtalaay kàttam mu ne loolu mooy li nekk ci moom mu ne kon mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen gàttandu bu baax a baax na ngeen xam ne Serigne Touba mu ne dara indiwu ko fi lu dul defar diggante jaam ñi ak seen borom lu dul wommat leen jëmale leen seen borom talul dara moom dundam gépp talu ci dara ba ni mu ba ni mujjee borom moo ne loolu lu ñu ci ñàkk-ñàkk solo liñ ci néew néew doole mu ne foofu rek la ñuy taxaw def ci suñ kéem kàttan maslaa bi nga xam ne mu ne mooy digganteem ak réew mépp mu ne digganteem ak bokki réew mépp eh, mu ne maslaa eh, eh, ba ca war ak responsabilité ba ca war mu ne woyof na ci moom toll mu ne dana ko def kéem kàttanam mu ne ba lépp loo xam lu jëm ci defar mu ne lépp jëm ci defar jëm ci réew mi rek jëm ci waa réew mi rek jëm ci njaboot gi eh, ñu ñu ñu ñu xëy leen ci réew mi. ñu di ko ñu bëgg ci lu baax di di ci sonn di ci bëgg mu gën a defar bëgg mu gën a jëm kanam. Mm-hmm. ñooñu na ngay xam yéen yëpp. mu ne na ngeen xam ne ñi nga mu ne foofu rek la nekk mu ne talul dara mu ne waaye responsable bi war ci moom li fi indi woon Serigne Touba defar rek soowee jaam ñi mu ne lim ci néew néew doole lool rek ci la nekk mu ne kon mi ngi leen di sant bu baax xolam sedd na bu baax ci jëf ju rëy jii mu ne ndax mënu fee weesu mu ne yitte ji mënu fee weesu mu ne mu ne taxawaay mënu fee gën a rafet mu ne mi ngi ciy sant suñu borom bu baax di sant bu baax di leen xam ne foofu rek la ne lu mu mën ci lépp luy njëriñoo réew mi dana ko def mu ne gannaaw loolu la yéen ñi yàlla dogal xiir leen ngeen jóg ci réew mi luñ ci mën a ànd ak yéen ci lu defar gi luñ ci mën dana ko def incha allah mi ngi leen koy seeral yéen ñëpp bu gannaaw ba mu ko seeralee suñu borom di ko seeree sëñ Tuubaa foofu rek la fa seen nekk jërë ngeen jëf. bisimilah na ñëpp tàllal seen loxo bisimilah.